amul benn yoon boo xam ne garde pénitentiaire yi jàppale nañ Baye Modou Fall yéene kaay gi ne am na keneen koo xamante ni ci lu jëm ci mbiri Boy Djiné teg nañu ko loxo ndax kooke nag moo ko yónnee woon ab xaalis ci kasu bi dañoo topp li nga xam ne mooy transaction bi journal bi nee na ay guddee guddi la ñuy jël ki nga xam ne mooy Baye Modou Fall ca kasu ba daal di koy defeere ca parquet ba moom ak ñi nga xamante ni ñooy ay complice ni ki démb la ñu ko xamle yéene kaay gi nee na ñenn ñi nga xamante ni ñoom lañ tegoonoon loxo ak Boy Djiné maanaam complice yi am na ci kenn koo xam ne bi ñu càmbaree ab téléphone téléphonam def la xëy di ñu xibaar naan ñu ministre bi nga xam ne loo xam ne jëm na ci na lu leer ci réseaux sociaux nee nag ñi nga xam ne ñooy wéy di def ay ñaawteef ci réseaux sociaux yi di si saaga di ci yàq ñoo ñooñee nag dinañu leen teg ci yoon journal bi nee na état bu ma ngi préparé li nga xam ne mooy ab guerre fas yéene jàmmarloo ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi yéen kaay gi nee na coronavirus beeg jafe-jafe yi nga xam ne andil na ko réewum Sénégal loolee tax na ñi nga xam ne ñooy waa FMI daan nañu génne lu toll ci trois cent cinquante milliards ngir dimbalee ko Sénégal yéene kaay gi ne na xalif général des Mourides niki démb nag daan na yebal porte-parole bi di Serigne Bassirou Abdou Khadre mu yëkkatay kàddu ci ñenn ñi nga xam ne ñooy def ay ñaawteef ci Touba Serigne bi nee na lu jëm ci wàllum xulook wàllum piccoog mbaalook dem ci terminal lu ci lu jëm ci wàllum suufa ci Touba loolee war nañu ko moytu wàllum football bi nga xamante ni tamit ñoo ngi koy def ci Touba Serigne bi nee na loolee bëri na lool te dañoo bëgg mu dakk ndax dañu koy tere ci réew mi Serigne bi niki démb ñi nga xamante ni ñooy chef de quartier yi ak maire yi la sëriñ bi woowoon ak yenn cay kilifa ngir ñu toog waxtaani wat jafe-jafe yi nga xamante ni ñenn ñi ñoo ngi xëtt ndigal di ko def ci Touba yéenekaay gi di réew mi ko di xëy duñu xibaar mbir mu doy waar a doy waar ci lu jëm ci wàllum góor jigéen ci diwaanu parcelle journal bi nee na parcelle dafa am benn koñ boo xam ne xale yu góor yi ñoo jàpp kenn koo xam ne dañu koy tuumal ne góor jigéen la waaye dañu koo dóor ba maara détail yi bi nee na dañu ko sax mujjee filmé yéenekaay gi di source a xëy duñu xibaar naan ñu élection yi nga xam ne la ñu tëgmal weeru janvier janvier atum 2022 élection locale yi nërta yomb ci njiitu réew di président Macky Sall ndax ñi nga xam ne ñooy opposition bi jamono ji ñoo ngi teg coalition boo xam ne coalition bu rëy rëy la yéen a kaay gi ne na ku ci mel ni Khalifa Sall mën na bokk ci coalition ba bekk ñi nga xam ne ñooy waa parti démocratique sénégalais ak Sonko ba ci Bougane Gueye Dany Malick Gakou ak Pape Diop yéen gi ne na ñi nga xam ne ñooy opposition bi jamono ci ñoo ngi waxtaan a kaay gi ne na département yoo xam ne opposition bi bu ñu fa déggoo maanaam mën nañu ko gagné yéen a kaay gi baax ci lu jëm ci wàllum élection locale yi 2022 ci Amadou Ba mi nga xam ne ñenn ñi ñoo ngi lam-lamee naan candidat la ci département bu Dakar ñi naan candidat la ci mairie bu Parcelles Assainies Amadou Ba nag kàddu yi nga xam ne mujjee na ko yëkkati nee na jamono ji APR ak Benno Bokk Yaakaar gañe maanaam loolee mu yitteem yéene kaay gi nee na Amadou Ba nag jamono ji maanaam nag bii gañ bi perte si la Amadou Ba toll yéene kaay gi nee na su bëggee moytu syndrome bi nga ñaari loxoom docteur Moussa Diop daan nay wax ne li nga xam ne nag moo jëm ci àll politique gu Amadou Ba loole nag ci ay loxoom la nekk yéen kaay gi di di Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew di président Macky Sall yëkkati woon na ay kàddu ci tournée économique bi wax ne bëggut a gis benn liste parallèle ci biir benn Bokk Yaakaar waaye nag loole du yomb ci Macky Sall ndax jamono ji bëri na ñoo xam ne nee na ñu ci biir Benno Bokk Yaakaar candidat la ñu doon Serigne Thiam deb enseignant jàngale lu jëm ci wàllum science politique ci université Cheikh bu Ndakaaru nee na jamono ji ak tolluwaayu politique bi ak li dese Macky Sall ci réew mi ta ñàkk maanaam ay liste la ci biir Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi di Sud Quotidien wax ci opération militaire yi nga xam ne ñoo ngi koy def jamono ji ca diwaanu Casamance yéen kaay gi ne na ñi nga xam ne ñooy wax MFDC ñoom nag ñoo ngi sàkku cessez-le-feu maanaam jamono ji ñu daal di wéer ngànnaay yi te waxtaan réewum Sénégal nag ñoom la ñu tuumal ne lépp loo xam ne jëm na ci wàllum bloqué li nga xam ne mooy négociation yi Sénégal moo tax loolee jamono ji demudul céng dikkatun bay laara yéen gi di réew mi ko di jànq duñu Sarr nañu niki démb tribunalum Ndakaaru daan nay toj ndax dafa am benn waay boo xam ne dafa nax ab gelam nax yu mettee métti ba jël ci moom lu toll ci ñeent ci ay millions ndax waa ji dafa dem ci gel bi na ko benn rakam dafa amee feebar fexe daal ba waa ji jox ko lu toll ci ñeent cay ay ndax moom am informaticien la dafa andi ay fausse facture ci la ko xale bu jigéen bi jëlee daal di koy porte plainte niki démb la ñu ko doon àtte ci tribunalum Ndakaaru yéen kaay gi di estat xëy ci xaritoo bi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Cap Vert tey jii bu 19 heures jotee journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy gaynde yi war na nañoo wanewaat seen bopp ndax match bii nga xam ne moom la ñu génn première mi-temps bi amoon na spectacle waaye nag deuxième mi-temps bi maanaam dese woon naa am spectacle journal bi ñu xëy fekk fa Kalidou Koulibaly mi nga xam ne mooy capitaine gaynde yi nee nañu nag ñoom lépp loo xam ne mën nañu ko def ngir faire plaisir ñi nga xam ne ñooy peuple sénégalais bi danañu ko def yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Balla Gaye numéro 2 daan nay lu leer ki nga xam ne mooy Bombardier nee na sama diggante ak Bombardier règlement de compte la moom Balla Gaye numéro nee na dina ak moom ba pare